l'actualité en continu gay actualité bi ñu fa seen waxtaanee nga xam ne nag mooy donc ki di Amadou Bamba Dieng bi nga xam nak actuellement Pablo Longoria wax na ci li jëm ci prolongation ak aussi ki di grand porteur mi daal di wutal remplaçant ki di Edouard Ndiol Coumba Miodogore Goré Mendy loolu lañ fa seen indi dal ay leer daal ko wasaré wax ci ak yeen waye pendant ce temps également du côté nak de la NBA conférence ouest ki di Stephen Curry pour la dix e fois de sa carrière ñu daal di koy tann mu nek donc meilleur joueur de la semaine fofu nonu ci euh, donc euh, conférence ouest ci NBA Stephen Curry donc nak actuellement le monsieur trois points donc n'est que di battre ay record lui également comme qui euh, dit donc euh, LeBron James ay légende lañ donc du côté également de la Coupe d'Afrique vois le handball ëllëg le Sénégal de jouer quart de finale mom nak ak Égypte. gannaaw bi nga xamné nak nag suñu gaynde jigéen nañoo nërmeelu ci kanamu donc Cameroun donc Sénégal euh, day day ak Égypte nak pour dem xel qualifié nga xam moy daal dem demi-finale Amine Harit nak gannaaw nga xamné mom c'est confirmé que né mom il est forfait pour le mondial manam du mën a jouer teewul nak wa fédération bu marocaine dañ ko daal di yobale ci seen i bagage nag nee na nañ même bu féké né jouer wul lépp luy prime am

dañoo nekk si benn programme boo xam ne programme bu dañu teg bu drastique pour waajal coupe du monde bi ki nga xam ne aussi mooy donc kii di Lionel Messi la Pulga moom nag actuellement nee na favori yi mooy donc kii di euh, France ak Brésil ñoo leen xaw a euh, raw tuuti tuuti mais ñoom. C'est objectif Moi, fexe ba jël li nga xam ne daal mooy coupe du monde bi daal la ñu bëgg ki nga aussi moi donc kii di euh, Sergio Busquets Busquets mi nga xam ne nag euh, Barça dañ ko bëgg proposer prolongation Moi, nag nee na MLS daal la bëgg a dem même bu fekkee ne Arabie Saoudite am club yu mag a mag yoo xam ne ñu ngi fa euh, bëgg koo daal di jënd teg ci xaalis bu bëri bëri ci table gi pour d'aller di koy jënd li nga xam aussi moo jëm ci coupe du roi donc deuxième partie bi que ëllëg gars les amal tirage au sort bi coupe du roi xool ñan ñooy daje ci deuxième tour bi nekk loo xam ne nag jongante yu nar a neex lay doon nek lo xamna ne ah, donc day gëna a tax sax li nga xam moy donc championnat Espagne ah, ñi bëgg am classico bi deux fois rek mëna am 3 troisième sax bu fekké né wa Barça ak wa Real ñu dajé dajawaat ñi pendant ce temps donc li di wa Bayern de Munich ñoom nag ñi wajal sax sen euh, préparation deuxième partie de saison bi ñom tax nak fii ak le 13 janvier dañu wara dem nak le 6 janvier dañu dem Doha euh, après nak le 13 ñu daal jouer ak Salzbourg benn jongante xarito laata ñu reprendre championnat bi pendant ce temps du côté du Mars de Marseille qui di donc Jean-Pierre Papin donc légende nek Ballon d'Or également français qui euh, di Pablo Longoria tay momo moo annoncé day le site ci li nga donc Marseille mais en tant que euh, dirigeant Jean-Pierre Papin gi nga xam ne gars donc ah donc moom tey ak li def Marseille donc c'est normal mu daal di fay euh, des ah di aussi Bamba Dieng Bamba la nouvelle mooy gars yi dama leen koy jox mooy que ni kii Pablo Longoria nee actuellement ñu ngi xool ni fexe ba daal di prolonger contrat Ahmadou Bamba Dieng parce que kii di Pablo Longoria wax estime bi ne ñoom ah moom la ñu am ci Bamba Dieng gannaaw nga xam ne difficulté yi nga xam ne Sénégal bi traversé na ko ñoom nag actuellement kii di Bamba Dieng l'avenir de l'équipe marseillaise moom mooy seen ëllëg et que tey dinañ waxtaan ak ñoom bu coupe du monde bi jeexee ñëwaat xool na nañ fexé ba daldi khatim xaatim ab beneen euh, déggoo seen diggante pour mu daldi prolonger contrat Bamba Dieng bi nga xamné ne ah, donc début début bi gis ngeen tolof tolof yi nga xamné mom la dund hein donc li ngeen metti yi nga xamné ne am na fa mais quand même il a tenu bon dañuy ñaan Yalla aussi tamit coupe du monde mu def coupe du monde bu baax a baax pour l' du Sénégal aussi nga xamné ne bu demee foofu mën na daal di toogaat waxtaan euh, des Marseille wala boobu mu dem benen club ko nexé du côté nak des Blues de Chelsea kii di grand Potter nak mi ngi jema woutal wutal di euh, donc Edouard Ndiol ko moom ñu dogore Mendy remplaçant kii nak mu gis moy gal góorlu Brighton mi ngeen gis nii donc nga xam ne moom nekkoon na fa donc Graham Potter moom daal la bëgg a indi fi nga xam ne mooy donc kii di Chelsea pour éloigner ko moom ñu dogoree Mendy am ne day ñëw tegu ci kawam ndax xam naa ne Kepa moom bu demee ci donc bu jógee ci li nga xam ne moom la nekk Edouard Mendy bu fekkee def na ko moom bu baax ñëwaat mën na relancer boobam sinon gars dina nekk loo xam ne dina xaw a metti pour le gardien de but sénégalais bi nga xam ne nag en tout cas jamono ji nekk na ci ay tolof tolof par rapport ak performance yi nga xam tambalon nañu ko ñu gis ko mais le football mo mel non football da nga jéeg say yéeg jéeg say wacc mais coupe du monde dina nekk occasion pour moom mu daal di gën a wane lañ koy daldi ñaanal gay donc c'était les informations que je voulais vous donner hein. donc toujours un plaisir de vous servir ni ma ko waxee à chaque fois woy leen di like woy leen di abonné gay yi on avance ensemble dans la magie de e-sport TV ja ngeen jëf